ak tabe tàccu leen ko bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëfati sëriñ Saaliw jërëjëfati sëriñ Saaliw maa ngi sàkku bépp mbokki taalibe na ko wax ci làmminam jërëjëfati sëriñ Saaliw jërëjëfati sëriñ Saaliw jërëjëfati sëriñ Saaliw moo ñu defar moo ñu defal tabe na loolu ba romb taw mooy may mag mooy may ndaw jikkoom des na ko ndaw moo yóbbu mag fa yàlla di may ndaw ngërëmal yàlla ku la topp am mbaa yàlla ba gore loolu ci kaw suuf waa ji xamul des koy xamal sëriñ saaliwu ki ñuy xamal ku ko topp doo demal moo indi cant ci kaw suuf jërëjëfati sëriñ saaliwu waaw ñoo ngi tuubal ñëpp nag ci lu ñu xam ak lu ñu xamul waaw di ñaan sëriñ bi nangul ñu ko di santaat yàlla bu baax a baax ba ñu amee bët ak làmbin ba mën a fekk bis bi day mel ne ren ji mooy dëppook 14 juillet 2023 di cinqui di cinquième édition boo xam ne Mouhamed mi ngi amal grand théâtre waaye maa ngi seere namu gu ma leen namoon ci mbëggeel ci cofeel seen tabe gis naa sañse yi lépp rafet na te loolu boo leen ko mën mënee day mel ne jëmm yàlla ak Mouhamed ñaa moo tax boobaak léegi liggéey bi mi ngi rafet dañ koy ànd ak ay mbokki taalibe ak staff bu yaatu boo xam ne amaana su ma limee du juum waaye damay bañ ko ma fàtte Mouhamed agsi na day mel ne tey daañu daañu laal cosaan daañu daañu laal démb cant yu yàgg ya waaw tey tey moom dañuy nux nuxal xol yi tey Mouhamed saa su ne dama koy wax ma ne way wax ju ñu suukar la ku way Serigne Saliou baatin ba saf xorom waaw te moom Serigne Saliou daa tooke làmminam am na ci yu yees yoo xam ne fii ñii lañ koy waye may santaat Serigne Saliou bu baax nag daanaka yéen ñëpp seen teewaay góor jigéen mag ak ndaw li may ñaan sama xol laa ko tibbee waaw maa ngi ñaan ci kàttanu Serigne Saliou képp ku fi ñëw ren bu déwénee yàlla nga yokk maa ngi ñaan ci dara sëriñ Serigne képp ku fi ñëw loo mën ren bu déwénee yàlla nga mën lu ko ëpp kii day sama mag di sama mbokk taalibe xam mbaakool te ku ne Serigne Saliou moom waaw cosaan bi gën a tedd ci cosaan yi la bokk. ku xam Serigne Saliou da xam askan bu mu bokk bu Cheikhul Khadim doonul woon waajuram bu góor sax fa mu bokk daa war a jiite jamono jamono ji ñu génn ñoo ngi doogaa di gis benn jëmm ñetti nomba yi gën a rëy ci lislaam daje ci moom mi ngi doogaa di xew ci lislaam kuutaayu yàlla ci biir mbindeef yi muy xalifatullaahi fil ardi kuutaayu muhammadu rasulullah ci biir diine kuutaayu Serigne Touba ci yoonu murit moo tax ma sàmba damay bëgg nga dugal ma mbaakool waaw ndax nit ki daanaka boo ko wayee wax fu mu bokk wax cosaanam wax kay maamam dana tax ñiy seetaan gën a xam Serigne Saliou alhamdulilah ca at yi néewam la Serigne Saliou Mbacké mel ni bàyyam di jëf masul ba di sampi daara di roy si xaara roy sib jaara ba tooge jal di door a woote ca ñam jaboote ngir bëgg a tekki sëriñ wax ma def ci ñoom la sëriñ Touba defoon ca mag ña donte yoon ko sax nu barkeeloo ko waaye def na ko ci ñun xoolal mbari giloo mooy borom njurul borom njàppundal borom lagan borom ndoka borom njëbbinjal borom xabaan borom janatul maxwa borom daaru salaam borom daaru tanzil borom usul maxa ñaaw silla matar marema silla ma ñaaw marema silla moodu mewnu silla fartiro silla moodu kala jaane baba dikk xëriñ njaay alsan ko masal jigéen yëri tàkku caam lamin yoro musa fari mata omar kaba soose ba sumbul silla ma ñaaw ram sall matar safra kamara maxtar lumbul silla joor kase joor silla yusu dafar silla musa xorojo silla musa fari mata silla alpata yëri silla daraman yëri silla amari musa silla mam asta walla mbakke mamam mamata joosi mbakke mam xari mbakke ma absa jaxate xadi amar soxna jaxate ahmadou gurel jaxate man si ngañ xari Mbàkke maam Xadi Jaxate soxna Binta Jaxate soxna Sofitu Ñang soxna Mbàkke Touré Jaxate maam si sa Touré Sëriñ Adi Touré maxtandumbe kokki Moodu Faa Xuja Njaga Isa Falloo Njaga Moodu Anta Géy Seyir soxna Buso Joor Panne Jëkka Joor soxna Anta Touré Awa Dikk Kamara Ndumbu Daanu Sànq mu jooju Xuja Géy maamam jëri jëy ba ngom umaani coro jenn damel ma samba ko damel samba yaye faal ma ñaw ali balman pendaga jaga lamin ajara maxtar umani silla umani jeng abdallah buri faal seex naa seex sali mbakke sëriñ am satu jaxate nijaayam sëriñ mbakke jaxate nijaayam sëriñ balla jaxate nijaayam sëriñ alasan jaxate nijaayam sëriñ abdourahman jaxate nijaayam moo taxoon ma ne ko mbakke yaay ndukum ndukum pelle lépp lim pancapi moon le pipi moon yoo gooj waa génération sëriñ saliw merci beaucoup Mbarick merci beaucoup Mbarick Lo maa ngi lay kontaanee Mbarick Lo di la ñaanal jàmm ji sax dàkk ak tawféex gis nañu Mohamed ñaa lu ñu ko jox sëñ Cheikh Mbacke la koy yóbbul Mohamed Niang lépp lu ñu ko jox sëñ Cheikh Mbacke la koy yóbbul leer na Mbarick Lo jërëgën jëf merci beaucoup Grand Théâtre merci Mbarick jërëjëf Massamba waaw santaan nañ bu baax a baax sa kàddu yi di ñaan suñu borom dolli la wér day mel na lii nag bu ñu ko mënee dañ ko ànd ak Cheikh Cheikh day mel ne lii bu ñu ko mënee liggéey bi dañ koo ànd ak waa Grand Théâtre waaw di di jëmm yu baax ñooñu jàpp bañ agsi fii waaw ma bëgg nga santal ma leen bu baax a baax jërëjëf jërëjëf waaye tàccu leen bu baax a baax a baax a baax monsieur Mbarick Lo liggéey bi rafet na léegi nag li ñoom ipongaari di wax naan ayca ayca ayca dafa mel na yëf yi nuppi na de grand théâtre est-ce que pare ngeen pour ñu door liggéey bi est-ce que pare ngeen ngir ñu dugg ci guddik Serigne Saliou bi wax leen te Serigne Saliou Mbacké ngir jot sunu ay vidéo di ngeen di fii ci seen chaîne YouTube feex Production ngeen bës cloche bi bokk ci programme bi national international